waaw waaw ñu àndandoo seeti Maodo si Abdou mu wax ñu koy yaa Rasulullah waaw waaw ñu àndandoo seeti Mansour mu Seydi Jamil mu wax ñu koy yaa Rasulullah yàlla Ibrahima ko ne woon bay rendil sa doom katax ñu rendi xar ma tuddee ko ko ko rasool ma ñëw mut woon ñu bu xar ma ñëw mut woon ñu rendi ñu képp ku fi doon góor te tabaske wuñu la war nga ko gërëme rasulullah bépp góor bu fi doon taaw te tabaske wuñu la war nga ko gërëme rasulullah ci waawoon li li ñu am lu leen ko may ma ne lu leen ko may la gën te gëm yàlla ak yonen tëral ñaari way jur jital njaboot maa Maodo xare seen koy cakaaw maa Maodo nañu makkal yonent bi maa Maodo nañu makkal yonent téeméer suba ka ngoon astaghfirullah téeméer suba ka ngoon lay lay lan la salaatul fatih insha allah léegi nga jokkoo rasulullah Ya dama won ken bañu lu nabi bekete yo amna ñu bañ nabi ñu nabi dañu xamul nabi ñoo xamuñu man dama burum dama ñu leen ziar di tey ñoom ñoo ñëw ànd ak ndombo waa ndombo yi taxaw daanaka liggéey bi ñu def ko benn liggéey bi jaar yoon di am kontaan tey daanaka tey dal bi ñëpp kontaan nañ li fi manqué woon lépp daanaka ren ji lépp yàlla matale na kon boog ñuy sant yàlla baax di sant suñu waajur yoo xam ñoom ñoo fi nekkoon daan liggéey ba jóge fi tey ñu am jom fas yéene taxaw bëgg a liggéeyal dalu waalo ba ñëpp nekk benn waaw di ñaan yàlla nag li ñuy def ren ji yàlla ëpp ba ñëpp yëgaat seen bopp déwén ci kàttan yàlla daan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñoo ngi remercier euh, waa dal bi yëpp di la ñaanal jàmm di ko ñaanal kilifa yi nga xamante ni ñoo sosoon lii tey te yàlla def ñu dawlu yan yàlla su borom xara leen àjjana sunu baay yi nga xamante ne ñoo fi ndekk di yàlla may leen wér te yàggal seen i taxawaay di sunu yaay tamit ñi jàpp si organisation bi yëpp ñoo ngi leen di ñaanal ñi def si seen alal ñi def si seen doole ñi jël seen temps def si li ki nga xamante ni moo tax ñu def ko mooy guddi yonent bi si Sila Hadji Malick woote ka di ñaan yàlla yokk leeram te nangul nu sunu gàmm ba lépp luñ fi ñàq wala ñu def ko wala nit def ko ci alalam yàlla si borom fay lak ba jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nag daaira la daairatu Touqa junior yàlla def ndomb sànjir yàlla def organiser sëñ Mouhamadul Mansour si jamil jox nu si ndigal sunu yaay soxna Diagne nekk membre fondateur ñu ànd seeg sunu yaay daara yi ku mel ni Alsane Diop ak ay dëggee jàmm ak soxna Kaltoum Thioy ànd seeg xale yi xamante ni ak soxna faatu Mbodj ak président Jumlas góor gi Ablaye ak Omar Diak di président daayira Toxa Samba seen moo yor kàddu gi nga ànd seeg mënugu coordonnateur ak vice président bi Omar Yàgg ak ñoom bi nga xamante ni mooy membre bi yëpp. ñëw fii pour jàpp si organisation bi liggéey bi xam ne lii seen lii seen mbir la yàgg-yàgg si ñoom la jëmi di ñaan yàlla nag yàlla dëgëral leen kàttanal nu dàqal nu seetaane ak ñoñom ba lu nu nisir si dal bi nisir ko si dëkk bi nisir ko si ndombo ak tariqa cheikh bi ak diina ji yàlla suñu bara mottali ko bi jaay Muhammad te mu nangul na ko salaahu salaam. ñuy sant yàlla bu baax a baax bi nu yàlla mayee ay kilifa yu baax man nu tete kilifa yu baax sunu grand du Diop mën naa ne que ni lii yëpp moom la parce que dafa du ñu nekk dakaar nekk ay xale mu woonu ni ni ah mbir mu baax mii nii may gis kon mbir mu baax moom la tamit dinaa leen ko muy muy bisu tey bii. su dee bi ñu organisé métti woon na lool mais nu góorgóorlu te gëm ni bis boo gis rek bis moo koy mottali ba tey si tey nii suñu kilifa yëpp kontaan. di sant yàlla bu baax a baax di sant suñu grand yi nekk Dakar ñooñu amul seen fay ndax duñu yëkkati seen alal di def si ñun gàmmu wan ko ne xam na ni benn jëmm mënu ko ku ne xam na ni ñaari jëmm mënu ko mais boole suñuy doole boole suñuy xol nekk benn su xamal lii nii dafa rafet ay ndawu kase bu nu neexoon mën nan dund leneen mais lu dëppoowul ak siraatal mustaqiim ñun bëggunu kon que ni ku ñuy jàppale nag nu jàppale si lii ku ñuy jàppale nag nu jàppale si lii di ñaan yàlla nag suñu njort yàlla weesu fi nga xamanteni ni fu kawé lay doon. Euh, di kontaan ci bis bi yag na ñew teewoon ren gi yag na moy sama 30 ans si gamu teewoon at mu nek ma teew mais at mu nek saa yi ma rek gën si gis yokuté dal bi parce que danaka ba muy dogu a ay adiba yag danaka miri sa am fóon mais si mbaxu mag ñi ñoo toog toog kër gi ci mbaxu mag ñi yi fi nek yeb danaka ñoo fi des ba mag ñi tey eh, la ñaan yalla yalla yalla yalla yërëm te yeexunu ko mais liggéey ni fi liggéey ba xam tey mën naa ne tey ndono la ba xam tey suñu sëti sët man man man mën koo mën nañ koo di soqat di soqat di soqat euh, bu ci des mooy euh, waalo Ndakaaru ak waalo Ndombo benn benn waalo kese la parce que suñu papa yi nekk fii suñu yaay yi nekk fii suñu maam yi nekk fii benn lañu rek na lañu bu gàmm jotee ñëpp ñu ànd liggéey jàppoo nekk benn ñëpp añ ba suur reer ba suur naan ba mandi ñaan mu jeex ñibbi jàmm ak salaam Euh, ndomb nag dafa nekk ndomb alaaj Malick parce que dafa ndomb Alaaji Malick Alaaji Malick ndomb Sanjiri fa la bi Taysir bi mu bind ndomb 1885 si lañ ko fekk foofu ni ko siñ Sëñ Babacar Si gën a gën a àddina sama maam Faajub Ngoone moo doon day daaraam maam Faajub ma xam ne moo jur Ablaye Waar mu jur sama pap ma jur moo doon day daar Alaaji Malick kon waalo kon am na cër si Tiwaawan kon man sëñ Babacar mos na wax nii ziar ndomboo ko njëkk def képp ku am ziar ndombo am na si am na si cër ku ziar si Sénégal rek ndombo am na si am na tuyaaba kon ndombo jëpp di kon ziar kon man la kon ndombo kon du tëkk bu tuuti dëkk mag la e, di gërëm ñëpp di sant ñëpp te nga ñaan yàlla nag fii nag dem ba nekkee immeuble parce que tey waxtaan nañ si waxtaan woo yaatu tey si dëkk bi tey e, ndombo daal e, ay ñu baax nekk daal ñepp ben lañu ño bokk nday ño bokk bay ñu nek Dakar ñu nek ñu jóge walu walu ñu jóge dem Dakar am fa teranga nek bu am lu ñu am naam mais ñun ñepp walu ñu jóge bu gàmmu jotee dina ñew bu dëj amee dina ñew bu leen amee dina ñew man nak euh, content na trop ci bis bi man la and ak sama rek sama nijaay ji ali jagne Diop euh, ñu bokk ndombo euh, at bu nek ñu naan at bokk ci jël ci fi mag ñi yoru lepp ñu daan tok daan nek di xale bu yàlla defee jamono dox ba tey lépp tegu sun loxo kon loolu doon sant yalla ñu ñaan yalla lo tam ci wër ba suñu sët mu tebi sun loxo gërëm ñi ñëpp sant ñëpp vraiment taxaway amna dal du jo ñom ba limee joom jigeen ñi tam ñëpp taxaw ben famille dal ben famille la jëf contant na ci yow itam maa la ñaanal rek ma dem ba am télé nek liggéey ci télé yi barke lépp waaw alaykum wa rahmatullah man la Baye Cheikh Mbodj nek euh, di doomu dal bi fii nag buñ ne dal bi dal bi mooy dalu ndombo buñ ne ndombo ñu koy gën a xam ci waalo maanaam ñu ñooy waalo waalo yi ñi nga xamante ni ñoo dalaloon maam Seydi Hadji Malick mu bind Taysiir ci suñu dëkk ca ndombo Taysiir mooy anniversaire u euh, suñu sëriñ Seydi Aboubacar euh, alhamdulilahi alamin ay tiijaan nag bokk ci patrimoine maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bokk ci euh, taalibe mi njëkk yi macha allah. waaw euh, sant yàlla comme ni mu daan demee rek ndax euh, fii dafa nekk dal boo xamante ne nii ay mag ñoo ko jiite woon yàlla na yàlla oyofal suuf ci seen kaw te taas bi seen barke. xale yi tamit volonté wu am jom fi mag ñi doon teg seen tànk. ñu teg fa seen tànk moo waral organisation bi macha allah chaque année nii rek lay demee du am benn débordement kenn du mer ni ko bëggee lañ koy def ñu gàmm ko ci jàmm war ko ci jàmm comme d'habitude. seeti mbay si mu wax ña koy aasoo mais loolu du du du du sens mérite la parce que nit da ngay volonté wu fekkee da bokk ci dara yow yaa war a jóg nga wane sa bopp ni ah lii kat maa ko moom sa yëfu bopp yaa koy téye kenn du la ne fii nga war a toog xale yi ñun dañu leen di ñaanal parce que li ñu gis ci ñoom dal na suñu xel tey jii alhamdulilahi rabil alamin mag ñu jógewuñu jóge nañ fi mais fee ñu tëdd ñu ngi sant bu baax a baax seen ñaq seen doole pas-pas gi ñu am bàyyiwul dara lépp la ñu jël ñu injecté ko ci biir dal bi ñun dana leen di gën a ñaax ñu gën a góorgóorlu xam ni fii ñu teg seen tànk fii la alhamdulilah rabbil alamin dana leen ci gën a gërëm sallallahu alayhi wa sallam ah alhamdulilah rabbil alamin parce que maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala li tax mu woote gàmmu du lu ndaw Seydina Mouhamed ku nu bind moo tax lu nu bind moo ci gën kon ku ne dangay ngay màggal guddeem sunu borom dala koy dooleel ba mu koy tàmbali ci li ñu nettali melul woon nii waaye tey jii day gën a yokku rek du dellu ginnaaw gàmmu moom defaru la rek ndax lépp loo gis ci àdduna rek bu àndul ak sallallahu alayhi wa sallam sunu borom nee na bëgguma kon lu ànd ak sallallahu alayhi wa sallam yokku tef daal laa ci gis ñun nag alhamdulilah can ban koy tàmbali ba tey jii dañ cee gën a gis sunu bopp ndax gis nga lekk yi day gën a saawan baawan euh, te jox nit ñam mu lekk rek loolu tiyaaba bi ci am kenn xamu di tudd nag di dund salaatul fatihi macha allah alhamdulilahi rabil alamin ndax guddi la boo xamante ni dañ ciy jaamu yàlla lu nu mën lu nu mën dañ koy jaam ñu ngi ko jàppee ni bis bi nga xamante ni mooy li yàlla waxoon ci xayrul mil alf shahr ci guddi nga xamante ni mooy guddi laylatul xadar niñ ciy jaamoo noonu la ñuy jaamoo guddu gàmm gi ndax salaahu salaam mooy suñu lépp. waaw danoo bokk pas-pas danoo bokk pas-pas di xàccandoo di doorandoo bokk suñuy maam bokk suñu lépp bokk suñu euh, suñu suñu suñu cosaan bokk suñu dëkk bëggantandoo ndomb mooy Dakar Dakar mooy ndombo ndax dem lante beeg bi mbokk gi yàlla da def ba pare kenn mënu si dara ñoom nanu xam lii yor bu leen ko waa ndakaaru gën a bëgg waa ndakaaru yi xam ni lii yor bu leen ko waa ndombo bëgg gën bëgg benn solo gana lañu am ci diggante ndombo ak Dakar mooy xàccandoo dóorandoo mooy suñu biir alhamdulilah bisimilah rahmaani rahim sant yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom borom bés bi ñaan yàlla suñu borom bi tabaraka wa ndax dal bi nu ay baay ñoo ko defoon di ñaari ndombo yi ndombo àllarba ak ndombo jóg ñu yàlla def ñu def ma présidente boobaak léegi yàgg na ñi ñu ko bokkaloon dawlu ñu leen di ñaanal Yana na yàlla yeesal yërmandeem ci ñom xare len aljana ñu fi dess ñun yag fi di gungé xalé yi ñuy ñaax xalé yi nag ah legi, bu ñu gestoo ñu gis kenn xalé yi waaw mami mami dem nañu bayi dem nañu ñom ñoo fi dessandi ñun ñi itam dañ leen di jappalé rek di leen gunge ñaan yalla suñu borom tabaaraku taala xale yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla may kàttan ànd bee tam yal na ko yàlla dëgëral yan na yàlla tàppe xol yi li maam Pape Abdou Aziz Sy Malick daan wax yal na ñu yàlla fóotal xol yi ba mu set wecc def si liimaan ak lislaam parce que man ni ma taboon comme président ah xëy na dañu amoon yaakaar si man rek lolo tax yaram bi sax mayuñu ko waye ñuy continuer rek di jéem gor góorgóorlu di japp ndax mu baax sante yalla sante bu baax sante yalla di ñaan yalla yalla nañ ko fekk ay ati ati ati at ni jitu yalla na leen yàlla xaare àjjana barke alay salatu salam yalla yalla wéral cër yi saafara jangoro yi teggi tisi tapé xoli yalla ma ngi sante di ñaanal blague bay sore di ñaanal ñuko ko muy mag ñoom El Hadj Modou Sène ñoom ak i ñoom euh, Pullo ñoom ak i ñoom Mar Diagne ak i ñoom Ousmane Mbodj ñoom ñëpp seen tur boobu wax dëgg yàlla ñoom noo indi ñoom mel ni ñooñ mel ni lii ñoom noo jëndoon kër gi kër gi yàgg loolu wax dëgg yàlla ndef ko pour ñaar dëkki ndomb yi kon noonu ndomb yëpp benn nañu muy ndomb Maxtu euh, Mulaana ndomb Jàmmagën ndomb Sangiri ndomb Jóob ñëpp ay ndomb ko ndey bay kon nag boo jee dal ñu dal ñu ñëpp ñëpp daje di leen sant di leen ñaanal ñu daw lu nekk di leen ñaanal yàlla yenn yàlla yàlla xar leen àjjana malaaka yam teeru leen te ñu fi des yi ñu leen ñaanal yàlla muy sa pël pël moo fi nekk Mar Diagne Ablaye Thiam Ousmane Mbodj euh, ñoom noo fi ñoo fi nekk Baba Waar ak euh, Ama Diaw Ndiaye ñoom noo fi ñoo fi nekk gul ñoo fi ñoo fi féete mag mais tey ñun ñëpp mag la ñu man tey maa ngi sama soixante-onze ans kon nag dootuma xale

sunu maire yi wax dëgg bàyyi ba léegi bàyyi wu ñu nii ñoom Fatou Diop ñoom ngi fi ah ñoom ñoom naxee ngi fi ñoom kii ngi fi ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp ñu ngi fi wax dëgg yàlla ah kenn manqué wul wax dëgg yàlla fu nekkoon ba léegi ñu ngi fi taxaw wax dëgg yàlla ànd ak seen doom yi ànd ak ñëpp wax dëgg di liggéey rek ñu ngi nii jigéen yaa ñu toog ñoom ñëpp kenn desul wax dëgg yàlla di ñaanal aussi xale yu ndaw yi aussi itam Doudou Diop ak équipe am vraiment wax dëgg ñu am sawar la ñu def kontaan lool si ñoom lool wax dëgg yàlla ak ñëpp ñi xam ne ñu ngi dogal seen alal si si si kër gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp e boo gisee lii mu def wax dans la organisation ma macha allah ñu fi nekk si nit mais lekk yi doy na boisson bi doy na lépp doy na fa dëgg yàlla di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu jabar yi aussi suñu rakk yi xale yu jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu jël relève bi e di ñaanal aussi ah, maam Yacine Diop nii wax dëgg yàlla dafa yàgg lool si mbir mi bu man maa ngi ràññi mu nekk daayira Modou Sène ba léegi année bu nekk man maa ngi ràññee ba mu gën a xale ba léegi mu ngi def terangaam bay tey suba la indi terangaam ñu koy wane fii ay ñetti kees juróomi kees la indi ak tànk yëpp ñëw kon nag di ñaanal ñëpp yéen yàlla doolu jàmm yéen yàlla doolu leen sutura du kontaan loolu yéen itam dina ñaanal yàlla eh, seen ci eh, bi yéen yàlla ne jàmm yokk na ba si kanam kanam kanam lu koy tawi ay déwén déwén déwén déwén allahumma salli ala sayyidina Muhammad bis mbir mu nekk dana am fu muy tàmbalee waaye lu baax soo koy sos saa yuy gën a dem day gën a yaatu ñu gis jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk dëkk ndoom bu nekk Dakar yàlla may leen xel ñu ñëw di jël seen alal di def di organiser daal mi xoolu ni si góor xoolu ni si kenn di ko def ngir jëmmi yàlla ñu dem ba xam ne ñii li ñuy defal ñu ñëpp la war kon ñëpp leen si war a jàppale roy leen si ndax nit roy lu baax dafa am solo léegi nag ñun daayira bi ñu taxaw organiser wu ne bu ñu demee daal ba war nañ fa am taxawaay bu spécial donte ni ñoo ngi doog a door lépp mënul parfait lépp mënul yemb mais daañu def suñu kémtulaay kattan au fur et à lu ñuy gën a dem yàlla suñu borom di nu gën di suturaal di nu gën di dëgëral ñoo ngi ñaan yàlla ànd seeg nag mag ñi nga xamante ni ñoo ngànkoon lii lépp lu ñuy def wala ñu ko ñu koy nas daan ci waxtaan ak ñoom sottante seeg ñoom xalaat lu ñu jox si conseil ñu jëfee loolu incha allahu rabbi loolu daal la daayru toqaat yi doxee te ñaan nanu yàlla nag jeunesse yëpp am si taxawaay gàmm bu jërëtee lii sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk dakaar di ko def nu ñëw jàppale leen si liggéey bi xam ne ñoom jàmbaar nañu wax dëgg yàlla lii ku ko xool xam ne yombul dëkkul lëmm nga bëgg leen organiser wax ne yomb na daa leen nax te nit ñi bokku nu jikko bokku nu comportement bokk nu gis-gis nga gérer lépp ànd ak muñ ak dal ay année nga koy def kon kooku war nañ ko wax jërëjëf kon ñi nga xamante ni ñoo ŋànk lii nii nekk Dakar waa ndombo si ndombo bi ñoo ngi leen di jaajëfal ndax ñëpp nañ ko defal kon lii buñ ko defee ñun tamit si ñoom dañ ko royee loolu moo ñu woon nag daan boole suñu doole ñëw nag topp si seen ginnaaw parce que ñaanuñu yàlla di xëccoog ñoom dara luñ fi waaw te yaatal nan nu tamit yaa wax dëgg yàlla yaatal nan nu moo tax ñu ñëw gën leen a jege nekk si kaw pour mën a gën di bokk si liggéey bi mu gën a rafet bëgguñu bur moo tax ba nu waxtaan amul bruit amul lenn loo xamante ni war na indi juuyoo na leen topp seen ginnaaw rek ànd si liggéey bi incha allah waaw